mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay su fooy fanaan mbër gàlle yaay mbër fooy fanaan. nii nañ la ah. waaw moo tax feeñ a sa kanam. Hmm. sëriñ métti na. Hmm. gis nañ lépp. Hmm. mais yàlla mooy borom ba aliment yurid. yàlla kum neex ànd ak yow yàlla mu ànd ak ñun tey. Sa Thiès Reug Reug démérité tey. da koo a bëgg combat bi. moo tax yàlla may ko ndam. li daal. CNG tey laay jox paan ñoo yàq làmb ji tey deful dara Sathies deful dara su may Sénégal ah. ñu ko jël lu yaatu yaatu yaatu dëgg la parce que daa am lu ma war a lu bëri ci wàllu làmb dëgg la làmb ji yàlla moo fi nekk kenn ñëw dëgg la ñu ngi li nga wax combat bi noo ko gisee rek waxoon te Balla day jël waxoon naa lu loo xam leen sëgg rek du gis muy daan ndeysaan dégg nga ko nee na waxoon na leen ko que tey du woon bés boo xamante ne sax dafa leen daanu waaw

Casamance Waalo ba Touba waaye ba kenn ba Casamance képp ku nekk loolu loolu képp loolu xam nga ko kon kenn mu set la. Thank you. maam waaw gis ngeen ko ba tey ñoom ñi nga xamante moom mooy victoire nga xam moom la ñu gis ngeen Balla Gaye ñëw na léegi dugg ci gis yaay ji ndeysaan jooy yaramam daw nga xam ne lii lii lu rafet la loo xamante ni lu daw yaram la waaw billaay wallaay yéen daw daw bool daw bool gis Balla Gaye doo jooy na Balla Gaye doo jooy na Balla Gaye doo jooy na ndeysaan ay tal naa fa biso Balla Gaye doo jooy na ndeysaan yaayam jooy na Balla Gaye doo jooy na yaa ngi nii di dugg si mbër yi mbër yi ñoom ñoo yoroon ñoom ñoo yoroon sa waay waaw waaw ñoom ñëpp ñu ngi dugg si ndeysaan ndeysaan yéen ñëpp a ngi dugg si moom benn benn Balla Gaye 2 bi dugg si Balla Gaye 2 ñëw na ba sàmmal ak yaayam di koy dóor am nañ daanaka yéen a nekk ndoo woon sànq sa lamba yee sànq par par appuyé ñu rek deux minutes añ añ añ demal waaye ndeysaan kooku bokk na ci mooy mooy Serigne Sa Thiès Serigne Sa Thiès moo nekk noonu moom moo yor cuubukaayu Sa Thiès moom moo yoroon Sa Thiès moo yoroon cuubukaayam mbar mbégte bi lan la mbar mbégte bi mbar mbégte bi lan la mbégte bi lan la jërëjëf ñoo ngi sant Serigne Touba mbërgale yaay mbërgale yaay su guddee fooy fanaan mbërgale yaay mbërgale yaay mbërgale yaay mbërgale yaay mbërgale yaay mbërgale yaay su guddee fooy fanaan mbërgale yaay mbërgale yaay su fooy fanaan